baaxee rek euh, ñu dem xool xooli euh, VAR waaw kay euh, émission Hann Feeling biir Hann TV ngeen ànd ceeg Sista Dieng sëtu Penda Sarr baa ngi nii toog ba mu bëri doole jamaa noir baa ngi nii ah ñu ngi fi nga xamante ne rek moo di biir Yarax magasin ku biir Yarax magasin rek wax marché bi nga xamante ne moom moo fi nekk tey ñu fas yéene waxtaanee lu am solo mooy li nga xamante ne moo di wàllu enseignement ku ne enseignement rek ne ubbi ca l'école jamono ji nag loolu mooy bës si mim réew damay def lu dul rek. ànd ak sama caméraman bi waaw kay euh, bu naa ma borom vaar ñu daal dem xool yi sama yaay booy bu ko defee euh, ñu waxtaan ak ñoom ndax ñoom ay parents d'élèves lañ waaye tamit borom jaaykatu saag yeeg ak ñi nga xam ne ñooy jaay fourniture dinaa leen lem xool yi tamit ci kanam xam nga nu ñuy def dañuy dem seeti clip bi bu ko defee ñu daal di dikkaat léegi léegi rek lay doon. Be free. That protest. Yeah, where This is a song for my niggas. For everyone struggling the ghetto for survive. I love you niggas. You real heroes. Check this. Do you know what I mean when I say get up I am soldier? Born to go through this hard life, trained by the elder. Never expect help except yourself. Only count on ya. I'm watch shining on the dirt. So call me Diamond Virgin. See black in my eyes like After a box of magnum shit on the mic. Jump up the scratch like platinum beat. I'm just so awesome. How come I didn't really know I'd be the boss? I'm hey, oh, here we go. Making my first step in rap was an ironic test. Life sweet and spicy, taste a bit like a Tony Chef's. I got so much ammo to move forward through these games. I don't need play the gangster, now I got some foolish fam on the wall of fame. My bitch rap God saying I wanna say my name, but the goal of chain hit rock maintain. Gotta be with Kurt Cobain. Understand? Understand. I'm not one of these material ill of every word I speak was gunshot. I be serial killer. Uh-huh. Yeah, yeah, yeah. If every word I speak was a gunfire, nigga. I'm here murder. dafa mel ni rek dama dajeeg sama beneen maman boo xam ne mu ngi lal taabalam di jaay li nga xam te ne ne moo di euh, jën te ku ne jën rek xalaat sa xel dem ci yaraax magasin rawatina marché bi nga xam te ne moo nekk fii ci di ci biir yaraax ma laaj ko rek naka la def taabalam bi nga xam te ne moom lay jaay salaamaaleykum maman. maaleykum salaam. lay mu ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. tur bi naka la. Ndaag Wade. Tata Ndack ñu la fekk fii ci yaraax nga lal sa table di daan sa doole waaye tamit teg fii loo xam te ne am na solo muy ay ndawal ndawal li nga xam te ne moo di jënd te ku ne jënd ak ne presque mën naa ne nawet lañ nekk euh, naka nga euh, defee ak euh, jën yi nga xam te ne moom ngay moom ngay jaay fii ci biir marché bi. xanaa sant yàlla julli su ma xam ne mais jën yi nag moom macha allah ñàkk na moom. gisuñu jën moom parce que jën amul moom wax dëgg yàlla nawet moom ko wax rek xam ni jën amul mm-hmm. mais nag ñoo ngi góorgóorlu mm-hmm. di dóor waar rek di daw rek di daanu pour dimbali suñu njaboot gi mm-hmm. te dëkk bi dafa naqari macha allah amuñu dara waaye nag ñu ngi sant yàlla mm-hmm. lu ñu am rek dimbali suñu njaboot vecteurs mm-hmm. yi nag mi ngi nii suñu xale yaa ngi nii amaguñu firnde tiir ñu ngi sant yàlla nag ñu ngi jàng de ndax dem nañ école macha allah. ci loolu sax laa bëgg sax ñu waxtaanee kon yéen ngi daan seen doole ñu la fekk nga sa table di daan sa doole waaye eh, ubbi ci l'école bi jamono jii nii naka nga ko dundee ak tamit fourniture yi ak tamit euh, concept bi nga xam te ne moom la ñu teg muy ubbi tey jàng tey. Mm-hmm. waaw loolu moom lu baax la ci xale yi wax dëgg yàlla ubbi tey jàng ñoom jàng nañ wax dëgg yàlla dem nañ jàng doon nañ dem nañ école macha allah bale nañ école bi dem nañ jàng mm-hmm. xanaa ñu jàppale ñu rek pour suñu doom yi mën a jàng rek pour jëm. ñoo bale école bi. suñu xale yu jigéen ñi nekk foofu defar nañu. xale yu jigéen yi nga xam ne ñoom la ñuy jox école bi. waaw avant avant lañ defar école bi ba mu baax. avant waaw avant ñun suñu école amul ndox. macha allah amul ndox xanaa koñ bi noonu rek. Mm-hmm. mais école moom amul ndox xale yi jàng nañ moom. Mm-hmm. ubbi nañ dugg nañ jàng nañ. macha allah kon daal jamono ji daal lépp yem na fourniture inscription bi lépp yem na. ah est-ce que ñu man moom samay doom inscrire guñu moom gisaguñu fourniture may nañ leen ay cal quelques cahiers yi nga xam te ne. yàlla moom waaw man sama doom ñetti cahiers la indi xaw ma mais gisaguma fourniture yu ñu leen may sama doom. ayca léegi ñoom ñi nga xam te ne ñoom ñooy séddale fourniture yow lan nga leen di wax. ah xanaa ñu séddale ko rek mu jaar yoon ñëpp am élèves yëpp am xale yu ndaw yi am ñëpp dem jàngi ndax ñoom lañ yaakaar suñu njaboot gi lañ yaakaar waaye maman macha allah waaye maman macha allah dogguma la waaye xam nga jamono bi ñu nekk nii mën mën nañ ne kii bi dafa bëri maanaam ligne bi dafa bëri te macha allah est ce que nekkul tamit ñoom dañuy dañuy jéem xool naka la ñuy amee lu nekk rek ñu teg ko ci benn euh, parentèle bu ko defee yéen ngeen mën a mottali ah, lool moom dëgg la moom loolu moom lu wér la moom dëgg la ndax ñëpp mënul mottale dañuy dimbali rek ñun tam ñu mottali li ci des mhm. incha allah yàlla baax na Babacar Mbengue ngi ñuy mi ngi ñuy dimbali leen di may ay bourse jëm kanam rek mu yokk ko. amin ma bëggoon xam rek maman bu ñu la joxoon tey réew mi tey lan nga ciy def. man xanaa dimbale xale yu góor yi ñu liggéey. Mhm. am liggéey ndax sama doom yaa ngi ni sëmoor lañ ñu ngi taxawaa te war a yor seen ndey yeeg seen baay mhm. ndax seen mag seen yaay ay mag lañ. Mhm. ta xale yaa ngi ni jàng ba am seen diplôme. nekk di taxawaal ñu liggéey. ñii ñu ngi si géej gi di taxawaalu ñii ñu ngi yanu ay matt ñi ñu ngi taxawaal lépp di nga seen waajur ñii di dugg si gaal yi macha yegg ñi di suu kon moom nañ jàppale suñu doomi ñu liggéey man suma nekkon gouvernement lool lay def ubil leen ñu liggéey dimbali seen waji parce que seen waji di son nañ ma japp nekkon gouvernement loolu laay liggéey aji kon aji kon lu melni limu wax kon amna importance trop trop trop mom neena bu nekkon rek eh, dara ci rew mi eh, da fay jàppale rek eh, xalé yi ma sha allah ñu daali di liggéey léegi xam nga nu ñuy def dañuy doxantu nank ma xoli sama benen mama wala tamit benen jeune fille rek mo meuna waxtana rek ci xéet yu baax baax assalamu alaykum mama ñu ngi lay ziyaar bu baax. maa leen di fay. yaa am jàmm. sant yàlla bu baax. maman ñu la fekk nga teg sa taabul eh, yor sa ñebe nii di ko eh, naka lañ koy waxee ci ci olof ñebe ñebe ngay kii nii. kii moo tudd ñebe walet. ñebe wale. waaw walet walet. walet léegi yow lan ngay def nii da nga koy da nga koy witti teg ko eh, def ko ci ay mbuus wala. waaw dama koy def ni def ko ci ay mbuus. di ko jaay ñaata. waaw mbuus 100 francs rek la. mbuus 100 rek la. consommé Sénégal la. waaw dégg nga loolu <laughs> na ma aji maman ci loolu rek laa bëggoon rek euh, foofu rek laa jaay daaj ñu dugg ci suñu débat muy euh, li nga xam te ne moom ubbi ci ubbi ca lekkool ñëw na am nga élève waaw am naa élève ndax samay sët dañuy jàng. Mm-hmm. mais jamono ji maman excursion beeg euh, ubbi tey jàng tey bi lépp lépp yemb na wala. waaw ñun de ñu ngi sant yàlla bu baax rek. ubbi nañ daal yàlla ñu ñaan yàlla yàlla ma mottali année bi ci jàmm ak salaam daal ñu jàng ko ci jàmm ak salaam mm-hmm. loolu daal la ñuy ñaan mm-hmm. waaw. léegi yow naka nga gisee euh, ubbite lekkool bi 2019 euh, 2020 bi. ah xanaa ñu góorlu rek ñun tamit ndax élèves euh, nit moom amul lu dul njabootam mm-hmm. su ñu laajee inscription ñu joxe ko. ñu jëndloo ñu ay fourniture ñu jënd ko ñoom itam ñoom ñi nga xam ñoo instruire wala jàngale ñoo ñu war a jàppale. xam ne seen i doom seen ñoo ci nekk ak doom. te xam ne njàng mi léegi macha allah ñoom ñoo mën a jàppale xale yi daal ñu jàng waaye xam nga tamit inscrit ba pare jënd fourniture xale di dem di ñëw di taxawaalu rek ñu naan suñu lii suñu lii li ñu lijjanti luñ ko lijjanti ci vacances yi bàyyi ba école tëj ñuy doog nekk di jaabanteloo xale yi ñu dem rek di ñëw di découragé xale yi loolu tamit baaxul mm-hmm. nañu dimbale ci affaire njàng mi daal éducation bi nañu ci dimbale xale yi jàng te yàlla tax mm-hmm. waaw mais maman est-ce que est-ce que est-ce que yéen tamit euh, yéen a ngi yéen a ngi surveiller xale yi bu baax parce que tamit bu ñu waxee concept ubbi tey jàng tey dañoo bëgg rek euh, yëf jaar ci yoon loolu moo tax ñu def concept boobu noonu mais est-ce que yéen tamit yéen ngi surveiller seeni njaboot bu baax a baax bu ñu jugee école ak bu ñuy jàngi ak euh, comportement bi nga xam te ne moom lañuy yor bu ñu ñibbisee. son surveillante surveillante bu du foofu. Mhm. ñun affaire instituteur la ñuy wax. Mhm. affaire jàngale yi ci école bi. Mhm. ndaxte dañuy inscrire ñu loo ñu inscrire ndax loo mënti def taf tafi fu nekk lu nga lijjanti fa daw fu nekk nga réinscrire fa mhm. lijjanti ba am loo inscrire pare sa doom dem di ñëw di jaabante di dem di ñëw loolu tam dafa metti mhm. institeurs itam war nañoo toog xool seen bopp bu baax jàngale ci cadre grève beeg yooyu daal pour en cas grève bi metti na taxawaal loo xale yi metti na xale yi dañuy dugg eko du ñu jàng du ñu def dara di jaabante di dem di ñëw loolu daal war nañu ci jàppale mhm. waaw institeurs daal war nañu jàppale nit ñi xam ne nit ki lu muy liggéey lépp lu muy liggéey rek war na ci daw àq waaw ndax bu weer dee nga fayee ko ba pare te doo jàngale tamit loolu tamit dafa metti mhm. waaw. ay ci bu bëggoon nañu xam rek ah, buñ la joxoon tey ah, wàll ci réew mi lan ngay lan ngay def. waaw réew di metti na metti boo xam ne bi moom ñëpp a ci jàpp kenn rek mënul dara. Mhm. kenn ku nekk daal góor gouvernement bu fekkee ne kenn ku ne branche bi ñu la jox yaa koy doxal. Mhm. réew mi day dox. ndax kenn mënul dara ndax kenn ku nekk dafa am lu lay fal. kon na kenn ku nekk fi ñu la féetale rek da nga fa war a góorgóorlu léegi yow ñun léegi ñun dañoo bëggoon xam yow buñ la buñ la faloon dara tey jii yow na yow lan ngay def ci ak tamit table bi nga xam ne ne yaa ngi ko lal daan te doole. ah man kay moom fi mu ne moom xanaa ñeneen ma loolu moom taxul ñu wax man mag laa fi mu ne nii mag il faut mu am lu mu jaamoo yàlla daal. Uh-huh. ndax macha allah sama njaboot ak ma yor waaye man itam il faut am mu toog jaamu li liggéey jaamu yàlla la. Uh-huh. nga xëy tàllal sa tànk sax dafa baax. Uh-huh. loolu moo tax ma ñëw fii di liggéey nii. ndax liggéey jaamu yàlla la. waaye tamit ndax xale yi ñoom lu ñuy wax rek moo ci nekk réew mi daal li ci nekk mooy buñ bu utalee emploi mm-hmm. xale yi jàng mm-hmm. loolu daal lépp daal bu kenn ku nekk buñ la joxoon réew mi loolu rek ngay def passé wul loolu emploi daal xale yi jàng kenn ku nekk matière bi ñu la jox nga nga góor góorgóorlu ci mm-hmm. doxal ko ndax ministre nangam la ñuy wax ministre nangam ministre nangam kenn ku ne côté bi ñu la jox boo ko doxalee rek réew mi day dox waa ci kon baax na foofu maa ngi am mbégte contentement bu rëy rek ci loolu léegi nga xam te ne nag daal na koy sànni ci ay kàddoom waaw kay mi ngi noonu euh, naka laa war defati saxat yi euh, xaama doxantuwaat naa rek dem xool yi benn jeune fille wala bi pas cette fois ci sax góor laa bëgg am Yeah. xaas ci te waru la ngay mujjee jommi may booy laaj bi lu taaru la man sama dafa romb dara. mu mel ni rek euh, gis naa fi euh, benn waay bu taxaw ma koy nuyu rek nag salaamaaleykum maa ngi lay nuyu sëñ maa ngi lay fay soxna tur bi naka la. Aliou la. Aliou yow fii nga dëkk biir Yarax magasin. waaw fii laa dëkkee. Aliou euh, tey dañoo ñëw fii nga xam te ne moo di Yarax magasin di fas yéene waxtaanee rek ubbite l'école bi ndax nga ko jàngatee. waaw ubbite lekol bi moom wax dëgg fa yàlla moom instant bi jaar na yoon waar. ma ne ko si instant yi jaar na yoon moom tout ok instant bi nii quoi. ndax euh, wax dëgg fa yàlla élèves yëpp ñu ngi en classe. te aussi nettoyé nañu école bi yëpp ak alentouru école bi lépp daal nettoyé nañ ko daal lépp daal jaar na yoon jaar na yoon loolu daal wax dëgg fa yàlla allah quoi. Ba Aliou ñu bëggoon xam rek euh, bu ñu la joxoon kàddu tey ci réew mi maanaam président de la république ou bien ministre euh, lan ngay def ci réew mi. ah li may def ci réew mi bari na de. comme lan nag dañuy expliquer rek comme ça ñu xam Hann Feeling la te ku ne Hann Feeling wax ay waxi baax baax wax ay waxi neex-neex te defe naa ni euh, euh, internet tamit duñ duñ leen bàyyi benn yoon bëggoon nañ xam yow tamit ndax ngay comporté woo rek euh, ci réew mi. waaw jàmm ji moom laay njëkk laay njëkk indi moom. Ah. waaw jàmm ji moom laay njëkk a indi. Mhm. ndax liñ naan jàmm daal ci la lépp xëj. Mhm. waaw doon lépp daal doon benn. Mhm. waaw Sénégal dëkk la ba nga xamante ne wax dëgg fa yàlla dañ naan. pays de la Teranga te aussi lu ne am na fi quoi jàmm ji moom mooy lépp d'abord waaw su ñu amee jàmm nag leneen li moom waaw mën nañ ko kii ndànk-ndànk rek ba am li ñu bëgg daal waaw. léegi jeunesse bi nag naka nga leen di def. waa jeunesse bi moom jàppale leen bu baax. jàppale leen da ciy baax lool lool lool. ndax instant yi gis nga jeunesse jeunesse bi moom es bi ñu toll nii moom. doy na waar doy na waar daal. ñenn ñi ñu liggéey daal ñu ngi toog tëdd nelaw di ataaya rek. non bari na fi bari na fi. bari na fi lool sax. bari na fi lool sax. waaw mais jàppale leen daal mooy lépp. waaw jàppale leen mooy lépp surtout jeunesse moom. jàppale leen moom mooy lépp wax dëgg la yàlla. ñu ngi ko jaajëfal lu baax a baax man daal ban jàngat laa ci am dafa mel ni moom dafa gisagul xaalis wala soit dafa déggagul ministre wala genre yooyu daal moo tax bëggu ci wax bu baax <laughs> aji ma dem xooliwaat keneen rek. ak dafa mel ni gis naa fi sama benn tons wala benn papa daal laa ko mën a tuddee xaaral ma waxtaan ak moom xool lan la may wax ndax dégg naa biir Yarakh magasin fii moo yor de ki deg na moy jonjin sa fi quoi ay ci ni ma koy faral di waxe rek salam salaamaaleykum. alaykum salam ñu ngi lay ziar bu baax. ma ngi len koy delo soxna ci tour bi nakala Mamadou Dianko ancien président de l'ASC Montagne 6. e deg nga lol kon <laughs> ma sha allah way ak tey dañoo ñëwoon fi euh, ci rah Magazine ñu fas yéene waxtaanee rek euh, li nga xam tane modi moo ci le ko ñu bëggoon xam rek ban jangat nga ci am. bon jangat biñ ci am moy dañuy sante yalla bu baax par rapport ak ouverture yi passé quoi. ren gis nañ vraiment amna volonté bon d'ailleurs il y a des jeunes qui se sont volontés volontaires ak mairie bi def set setal ba tay ji xalé yi mën fa jang quoi actuellement ni bu fi may wax ak yow vraiment ça marche très bien au niveau de l'école. Mhm. kon donc kon ñom concept bi nga xam ci ne mom la président Macky Sall def ñom dañ ko sé wuy si ubbi ubbi tey effectivement non la amee. non la amee en collaboration avec la mairie vraiment mairie Hann Bel-Air def na ay effort yu bare bare bare pour ubité école ren bi quoi ubité jang tay bobu luñu wax mom mo am parce que le jour ji enseignant yeb ñëw nañu élève yeb ñëw nañu ku nekk rejoindre classe am. léegi fourniture yi ak li nga xam te ne inscription yi naka la au niveau de l'école bi. bon au niveau de l'école école am na ay inscription mais dañu ne képp ko xamné ne amoo ko aussi mën nga ñëw jang ci quoi bon compte tenu des fournitures aussi gis nañ ne maire chaque année mu ngi gée mu ngi joxé ay fournitures balen di aussi joxaat nañu mais publier guñ ko quoi. suñ ma joxoon tay budget bu mot mom damay damay. sañ ah, budget nga tudd de budget nga ah, budget non suma né budget mun naa dem out budget mun naa dem uti ay partenaires quand même parce que je pense bien que soo nekkee président de la république téguñ la fi rek pour nga am ay ministère ministère de rendre compte il faut surveiller les ministères. parce que tay ji problème yi am yëpp tay ji dalon na fi Ablaye Abdou Diouf hein ah. bo waxee mu ne yëgu won woon yëgu ma woon nag yëg mais aussi nga def le maximum. le maximum moy lan conseil des ministres day am ñu xol évolution man tay buma ma président de la république classe école bu nekk dana fa dem séti li fi xew ah mais dootuma tok sama bureau nga ñëw ne tout est ok tout est ok mo ray président yi fi jaar yépp wallahi maa la xaw tout est ok kon jël naa boobu tout est ok daal lay bañe a dégg ayca <laughs> sama cameraman ñu né naka lañ war def sax. daw dagg daal la bépp yàq sa taatu tubay toog fii di xaar wërsëg moy nga jawlé parce que ak du lu bay bala ngay am nak da nga wara gëm né mën na ne dëggu ci gëm mu sax sa dënn boy nag ci na la gëm sa bopp nit ñi gëm la bul bañ ñu ne kii dëpp la waxu waaye xol ci jëm la te xolaat bi nga jëm la. waaw man teemu fenn waaye ah? yow dafa mel ni complot jànguma jonguma amoon métti nga may wax wax. léegi lu waral loolu su ma koy laaj kàlle te ba tey rek Hann euh, Feeling la te bu ñu nee Hann Feeling la fépp la ñuy dugg tey gis nga li nga xam te ne moom la ñuy waxtaanee muy euh, ubbi ca l'école bi maa ngi fi ci benn boutique bu nekk ci biir Yarax magasin moom nag ñu ngi ko fekk mu ngi euh, def ba mu très bien nii rek di jaay ay t-shirt ah ay saak te ku ne t-shirt ak sar rek daal ci boole li nga xam te ni rek moo di ubbi ca l'école ndax si la bokk salaamaaleykum papa. waaleykum salaam. ñu ngi bu baax. waaw ñuy ñuy bu baax tey sant. papa euh, mu mel ni euh, ñu la fekk sa biir place euh, yaa ngi teg sa marchandise di jaay est-ce que parents d'élèves yi ñu ngi ñëw di jënd si bu baax. ah ñu ngi ñëw de waaye nag ndànk-ndànk. Mm. waaw. sax yaa ngi jar ak fourniture yi. ñu ngi jar waaye boo waxee ñu ne dañuy dem dañuy dañuy inscrire yi moo tax. Mm-hmm. te léegi dafa xaw a seer. Mm-hmm. boo yoree ay ñaari xale ñetti xale. Mm-hmm. da ngay dem njëkkee loolu ba pare léegi soo ñëw jënd saak. maa ngi jaay na mais ndànk-ndànk daal laay jaay mm-hmm. waaw maa ah, macha allah macha allah bëggoon nañu xam rek ah, ak ubbite l'école bi nii naka nga ko gisee. ah baax na de baax na de ñun de baax na ci ñun jaaykat yi. waaw mm-hmm. ah, baax yéen a ngi jaay daal. ñu ngi jaay partout <laughs> <laughs> suñu jëloon benn poste tey wala ñu ne tey yow yaa nekk président de la république na lan ngay def ci réew mi. xanaa woo mag ñi rek waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. waaw loolu daal laa xalaat. bu ci xaalis bi jox xale yi. ah xale yi ñu liggéey. waaye war ñun ñun ñi war nañoo jàppale. yaa mm-hmm. ñun xaw ma secteur informel lañ koy wax xaw mm-hmm. jàppale bu baax. Mm-hmm. waaw ndax liggéey bi métti na location bi daa seer courant bi daa seer. te njaay mi demee wut noonu. waaw nañ ñuy dimbale. loolu baax na ci de. <laughs> ñu ngi koy kontaanee bu baax a baax ah ngeen li mu wax man daal bëgg naa laay léegi la man daal bu doon sama daal ma dem jàngiwaat ndax saag yi ma fi gis nii am naa envie dem école. <laughs> salaamaaleykum madame. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar ba baax. delloo ziar. tey dañ leen a seet si woon fii nga xam te ne moo ci biir Yaraax muy euh, émission en Feeling tey ñuy waxtaanee li nga xam te ne moo di ubbi ci l'école bi naka naka nga ko jàngatee. Euh, c'est vrai école Ubina dans les bonnes conditions école yi setoon nañu élèves yi commencé nañu amuñu vraiment benn difficulté pour démarrer. léegi concept bu ubbi tey jàng tey bi euh, ak kon yéen mi nga xam te ne yéen yéenay maîtresse yi appliqué ngeen ko. waaw depuis l'école, les élèves ont été pris en main ils ont ñu ngi classe yi jot une fourniture l'école est les classes sont propres vraiment enseignants aussi on est dans les bonnes dispositions on a pu faire ça quand même waaw. ayca lan lan rek ngay wax euh, ñoom ñi nga xam te ne ñoo di parents d'élèves yi. xanaa ñu gën ci jàppale parce que ku ne xam na ne éducation jàppalante la parents d'élèves yi lañu ak ñun ñi nga xam ne ñoom ñun ñooy technicien de l'éducation nekk ci classe yi. parents d'élèves yi autorités locales yi ak euh, administratives ñoom ñëpp dañ ciy jàpp ñun ñëpp buñ ci jàppee daal dinañ am année scolaire bu baax incha allah. ayca bëgg nañu xam euh, buñ la joxoon tey kàddu ci réew mi tey lan ngay def. joxlen ma cadre ba pare. na <laughs> jox naa la ko. bu ngeen ma ko rek bu boba buñ ci yégué inshallah ñu def li ñu wara def rek. ci walum euh, école bi wala. wa walum école bi déjà ñun ñu ngi ciy jàpp bu baax man commune dama nek ci école yi nek ci commune Hann belair air di gérer éducation aussi lepp lo xamné autorité locale yi ñu ko wara def ci école yi je crois que ça a été fait. wa ma ngi ci batay dama fété ci école yi nek ci mairie bi nek chargé de l' conseil technique du maire ñuy veiller à ce que l'éducation se passe bien à Anne d'ailleurs ailleurs nous avons les meilleurs résultats de, du district ci district bi district Hann bel premier ci arrondissement Grand Dakar donc je crois que on est sur la bonne voie. merci beaucoup. aji <laughs> kon baax na moom dégg ngeen ni ko ah. euh, Until these motherfuckers fake ass, I'm Dracula. Show the world who I can was rhyme miraculous. I'm a hot life fighter, MC's doc by body. My style rock body, get a doc by spider. I know what body bullet mean, I'm supposed to be a soldier. Not playing Russian roulette, but no way on a shoulder. Breathe my heart out, man. What you hear is what I feel. I'm not though, oh no, I'm just so hard to kill. I came up in this web game in my flow and my skill. If you remember, I told you in a song this level, like I'm coming to kill. So no matter what, I stay real. From DK to Beverly Ill. So MCs, you better get ready. Cause I, I prepare better still seal. What you talking, making it own, thinking about you deserve it Never dancing me there when I'm going hip hop will not be so served. Ginnaaw you ñu xoolee rek clip bi nga xam te ne rek tarkal macha allah mbokk internet yi gis ngeen clip bi waaw oh, mais man xam lu ma ma jaaxal sax balaa boobu sax xaaral ma nuyu ko pare <laughs> ci loo nekk. oui maa ngi sant yàlla bu wér. tur bi naka la. Pape Maïssa Sarr lañ koy wax. Pape Maïssa yow yaay coordonnateur wu euh, staff bu euh, Befring. voilà waaw maa ngi coordonnateur bi maa ngi gérer lépp li nga xamante ne bii mooy relation beeg public beeg. communication yeeg yooyu noonu. ay ci bëggoon nañu xam rek bala ñuy dugg directement rek ci li nga xam te ni moom gis ci clip bi dañu bëggoon xam rek euh, ci euh, walum euh, li nga xam bi yeeg yoy noonu naka la démé fi nga xam Wow, mooy ci biir yarax waaw bi ak jangale bi fii si yaraax ñu ngi ci sante yalla bu baax parce que bo xolé ren bi ni amna ay évolution ay ay. amna yu réyu si gars def lu ci mel professeur rek yooyu daanaka sama école bii sax moo jël premier si école yu nekk fii si Hann beleer mhm. kon loolu satisfaction la mhm. xanaa di ñaan rek yàlla affaire yi gën a changé mhm. élèves yi gën si seen bopp maître aussi gën a comprendre élèves yi jàngale bu baax ba ñu am si daal réussite totale. man conseil ngay jox parents d'élèves yi. bon ñu gën a surveiller seen doom yi rek parce que dox bu bëri bi nii si année scolaire baaxul si xale xale daa war a am ku koy suivre ku koy encadrer di ko. expliquer yenn leçon yi nga xamanteni bi comprendre mu ko lolu aussi dafa am solo di aussi ñom tamit ñi buñ fekke am nañ temps ñuy jaar ci école yi di xol seen dom yi ba xam ñu ngi def ay réussite ba xam ñu ngi progresser lolu aussi am solo trop mm-hmm. ci bëggoon nañu xam tamit en parlant de ça comme par exemple tay buñ la joxoon tay cadeau ci réew mi euh, naka ngay def parce que ñu ngi seetaan clip presque mën na né lepp anglais quoi anglais la té ku né anglais xam nga ne ku tok ci baax ka def té tay euh, li nga xam ci modi walum jang bi lañuy waaw waaw man moom buñ ma joxoon juste damay apporter benn tous bu ndaw parce que lu ma waxoon rek progrès yi gars def nañ ko pare juste accompagner côté financièrement ak rééquiper encore une fois école parce que tamit soxla nañ ko mhm. mais. alhamdulilah daal fii moom sant yàlla quoi parce que élèves yi ñu ngi def effort bu rëy te aussi ñu ngi am ay notes yu baax kon loolu c'est encourageant. ayca lii rek sama ginnaaw nii nag mooy turu ki nga xam te ne moo di rapport boobu nu ñu seetaan kilibam léegi mu tudd Bifring Bifring euh, moom yàlla dafa def nekk fi mais yow yi nga xamante ne yow yaa nekk coordinateur bi lan nga ñu war a mën a wax rek ci clip bi nga xam te def na ko. Bifring dafa nekk nit koo xamante ne bii euh, day yëngu si wàllum développement communautaire. Mm. aussi loolu tamit dafa am solo gars yi xam ko. nekk na ndaw boo xamante ne day activité day activé wu si euh, dundinu askan beek yooyu noonu kon moom wàllum jàng bi dina doon loo xamante ne bi lu koy yiital la te daana si dox ay jéego loolu waa koñ bi yëpp mën nañ ko seede moom daal rek en tout cas mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi góorgóorlu si domaine boobu noonu côté développement communautaire aussi mu ngi sensibiliser école yi d'ailleurs am na ay programme yu ñuy waajal sax pour école yi waaye incha allah bientôt rek di ngeen ko gis. naa Fosco yi kese la ñuy waajal ñoom ñii ak ñoo bëgg Fosco yi waaye bëgg nañu xam euh, est-ce que est-ce que tamit euh, fii ci biir euh, an ñu ngi fi nga xam ne moo di si biir magasin bëgg nañu xam bii Fring lan mooy taxawaayam ci biir magasin. waaw taxawaay bu rafet la fi am boo xoolee fii nii si en montagne ñëpp ko xàmmee surtout kilifa yi ak grand yi. moom fu toj. bon tañ na fu nekk jël. a la toj compétition yu nekk jël na. ban ak ban. tube de l'année underground. boobu rek. ak yeneen ak yeneen. Ah, ak ban tamit egg na fu sori mais malheureusement mooy loolo mais en tout cas bii fruit muy malheureusement la wax <laughs> fan la toj laa bëgg a xam noo bëgg a xam xale bi fan la toj parce que man maa ngi nii tarkalla macha allah yaraax fii laa juddoo dëgg neexul moo tax ma gën a sawar sax ñu waxtaanam waaw moo tax ma wax la loolu fu mu toj <laughs> nga mën nañu bind si sa jees nii nii di ko di ko may bës dëgg neexul <laughs> mais bii fruit fan la toj exactement fan la toj bon bon gagné na ay tournois yu bëri nag ay mm. tournois yu bëri boo visité page YouTube am di nga ko gis Euh, récemment tube de l'année lañ mujjee gagné mais après jotoon nañ bokk si ay concours lu si mel ni Wacky Wurus waaye daa am ay malentendu yu si am moo tax mais boo duggee en montagne waxuma la en montagne rek mais yaraax rek foo dugg ne bii fri xam nañ ko te xam nañ lu muy dox te xam nañ ne waa bu tàng la waa ju aay la waaw yéen daal xaar leen ko rek. ah kon baax na Konté Konté <laughs> moom mi euh, nekk fi yow yaa fi nekkee est-ce que mën nga ñu expliquer ci projet yi nga xam si ne moom ngeen teg jamono ji. waaw instant bi moom ñu ngi ñu ngi waajal ay projet yu am doole sax. biir yaraax wala or Orsay. biir yaraax fii parce que jotoon nañ teg benn projet tuddee ko les 72 heures de yaraax. daaw moo nekkoon deuxième édition bi. aussi mu am réussite totale. doon lu ñu bett nag. parce que population bi wuy si ñu si programme yi moo ca teg yëpp. waaye deuxième édition bi moo ci raw. kon loolu day wan ne lu ñuy def mu ngi am avancement. aussi ñu ngi waajal troisième bi nag bientôt. ñu ngi naan nag ñëpp autorité ñëpp ñi nga xamante ne bi dañuy yëngu si wàllum développement communautaire ñu ñëw jàppalu ñu parce que sunu sunu but mooy yaraax si kanam yaraax ci kaw ci kanam loolu moo ñu jóg te ñu ngi si œuvre ñu ngi ñaan aussi autorité yëpp ñu ñëw accompagne si lancé boobu noonu mais projet yi ñu ngi si ñu ngi si ñuy waajal troisième édition yaraax 112 de yaraax ak yeneen programme tamit ñu ngi koy waajal bientôt daal di ngeen gis affaire yi allah aja kon mu mel ni rek ah, baax na foofu ah aja mbokku internet yi nga xam te ni yéen a safoo Hann TV li moo nekkoon seen émission Hann Feeling ngeen àndoon ceeg ah, Sista sa sëtu Penda Sarr bi ah kon moo koy faral di waxee rek moo ngi ni toog ah gannaaw ba ñu waxtaanee rek ah, sunu coordonnateur nga dañuy def lu du rek daal leen di jox dig daje euh, semaine prochaine euh, ci loolu la nga xam te ni moo di euh, la grand magal de Touba bu ko defee ñu ànd ak suñuy caméraman daal di defate xeeti baax baax. en direct rek lay doon bir en TV acca kon donc on vous donne rendez-vous euh, semaine prochaine Inch'Allah, rabbi rabi ci benen numéro en TV en fling euh, ak Sista Diez sëtu Penda Sarbe. ciao ciao